tay ji leen ndar lañ jëm ndara la ñuy dem fekk ji fa Ousseynou Diop benn quartier bu siiw euh, bum ñuy euh, wanle tey jile Ousseynou ginnaaw ba ma la nuyoo ba noppi tey jile lan nga ñu indi Ousseynou Télémac euh, moom la ñuy wax tey du ko ayti le ci diwaan Ndar Géej ñuy wax ci Télémac Sow tur bi li mu wundu bare na lool ngir nag askan yu gën ko xam dañuy dugg ci biir fekk fi principal bu Télémaque saw moom moo nuy xamleel telemax Sow mooy lan tur bi fan la jógee kan mooy kilifa gu mag nga xamante ne tey jile ci diwaanu Ndar géej ñëpp dañ ko wekk kon dañuy dugg ci biir école bi ñu mën a leen xamleel ak Télémaque Sow demoon na ci guerru 1914 1918 mu biñ ko blessé nag ci 1919 euh, amoon na médaille militaire ak croisée militaire euh, après ñu démobiliser ko bi mu génn ci armée bi bi mu blessé euh, en 1920 ñu affecté ko comme instituteur à l'école Brière de l'Isle donc fii ci Ndar lañ ko affecté mu mu nekk fi instituteur Euh, ci euh, am na fa sax mu nekkoon instituteur nag bu bu bu bu xarañ ndax nee nañu amoon na notu dix-huit sur vingt ci 1923 ci la bàyyi jàngale daal di dem ànd ak Lamine Gueye di def politique. kon na secrétaire général municipal euh, bu bu Ndar secrétaire général municipal ci de 1924 à 1925 à partir de 1925 dafa bàyyi loolu yëpp nekk journaliste ñu ni nekkoon na journaliste ci. Périscope africain mu nekkoon benn journal nekkoon na aussi journaliste ci euh, journal bu ñuy tuddee Sirène sénégalaise nekkoon na tamit journaliste ci journal bu ñuy wax Action waaw euh, avec François Mbaye Salzman te kooku tamit ku am tur la ci Ndar. 1945 euh, ci lañ ko élire maire Ndar 1945 jusqu'en avril 1946. 45 ba 46. mu mu ci la génn àdduna. déglu ngeen ki nga xamante ni mooy principal bu école Télémac Sow muy Mbaye Cissé wax nañu euh, tuuti ci li nga xamante ni mooy parrain bi di Télémac Sow euh, ñu jàpp ni kon d' abord li ñu gën a mën a jàpp mooy nit la woo ko xamante ni ku ñu ràññee la jàngalekat émérite la ñu daal koy respecté itam ci diwaan Ndar gi moo tax ñu daal koy duppee école bi. Makhtar Diop keneen la koo xamante ni itam yokk na ci kii ci Télémac Sow lan la ñu mën a jàpp ci moom ñu teewlu ko. jàngalekat la woon jàngalekat bu xarañ yàlla mayoon na si affaire jàngale moom moom mi ngi juddoo Saldé ci année 1890 moom après ci la ñëw def école normale en 1920 maanaam ci la commencé dugg ci affaire enseignement nekk na sax ndar gi école bu ñuy wax Brière Brière mooy école bi ñu tuddee Abdou Kéré Maxo kon mi ngi noonu jàngalekat la woon boo xamante ni ñëpp ràññee nañ ko mu nekkoon ku ñu ràññee ci diwaan Ndar géej amoon xam-xam bu wóor cëng dégg li nga xamante ni def nañ témoignage ci moom nekkoon na maire 45 46 kon bokk na ci maire yi nga xamante ni ñoo gën gàtt li ñu passé euh, ci lu jëm ci wàllu maire bu Ndar bile Kéré Maxo école bàngoog dëkkuwaay ci la noom tey jii fii lañ ko doon amalee ci école merci beaucoup Ousseynou euh, Diop euh, Télémac Sow amet Télémac Sow euh, boo ko déggee 56 ans la amoon ba muy dëddu àdduna nekkoon na maire homme politique la woon kon nekkoon it taskatu xabaar nekkoon instituteur tamit ci loolu la dooree man ba ma koy door dégg sax daanaka dama fogoon ni dafa laaleeg mythologie grecque ndax <laughs> ca laa ko xamee woon ndekete tour boobu noonu xaw naa siiw fii Sénégal xaw na fee bëri. waaw siiw na ci Sénégal moom mi ngi juddee ci Saldé hmm. Saldé nag pour ñi ko xamul mi ngi nekk ci département de Podor nekk ci. Euh, Ila Morphil mhm. donc euh, ca Fouta foofu la fekk baax euh, ñëw Ndar foofu la jànge waaye tamit nekkoon enseignant émérite jaar ci école yu bari ñu ràññee ci Carabane dans les les îles du Carabane fële ca Casamance jaar na yi tamit école Brière de Lys à Saint-Louis jaar école jaal ca Ndande jàngale fa mhm. waaye tamit démissionné na ci wàllu poste instituteur daal di consacré wu ci li nga xam ne ñun moom la ñu nekk ni muy wàllu journalisme mhm. bëri sax ay journaux yi nga xam vraiment l'un de la presse libre ci loolu da ci doon xeex lu bari ci wàllu politique yi tamit bu woon na ci daan jàmmaarloo ak ki nga xam ne euh, moom moo di Blaise Diagne euh, waaye tamit duggoon na ci parti bu ñuy wax SFIO bu président Lamine Gueye mm. foofu la doon milité euh, nekk yi tamit maire de Saint-Louis loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne moo di cursusam nekkoon daal un homme dimensionnel un intellectuel de très haut niveau d'accord Marcel mës nga koo dégg <laughs> <laughs> a participé la première guerre mondiale donc euh, am fay gaañu gaañu mooy lu wax sànq médaille militaire bi ñu takkal ko William Ponty école normale lañ ko tàggatee. donc Samba Sow ak Fatoumata Doucouré ñoo ko meññ mais di ngeen wax aussi muy école bi ñu ko tuddee nag ci Saint-Louis soxna naata. gis nañ ni résultat yi ñu ngay góorgóorlu parce que bi gëstoo déjà beneen bi am nañ ah, donc euh, directeur bi nee mu ngay def kéemtulaay kattanam pour mu wuyoo turam parce bi ñu fi wax sànq journaliste enseignant émérite diplôme bu nekk ñu daal di ko koy jox. ba ci wàllu politique ak Lamine Gueye sax cheminé naan ensemble. Mm-hmm. donc école war naa mën a wuyoo douze classes la am donc douze salles douze mais effectif aussi c'est raisonnable d'après gëstu yi nga xam ne def nañ ko. yàggul euh, fa def. parce que voilà c'est peut-être Saint-Louis aurait été plus. 45 ba voilà 45 ba ni muy décédé 46 46. exactement ba ni muy décédé voilà c'est ça merci beaucoup Ousseynou Diop euh, ci de quoi est-il le nom bu am solo boobu euh, suba incha allah ñu indi leen beneen léegi dañuy dalalaat Ibou Diouf ci xibaar yi.